mënuma di santaane nañu ñi takk masque en tout lieu et en toute circonstance ba noppi toog ci télé bi di wax ak ñoom tekki sama masque mais du caag na ñi ko tekki. waaw respecté wuñ geste barrière parce que sama diggante yow mat na 5 mètres. mat na 5 moo tax bu ñu toogee en général studio dañuy wax kan bi na ko mën na koo dindi waaye ñun tam ñu ngi respecté tamit sa principe. ndax gis nañ dafa am benn image de communication bu nga bëgg a véhiculer. ñu gërëm di la sant bu baax monsieur le maire gannaaw ba ñu nangu la invitation bi may profito ci kaddu jaal yi nga xamante ni yëkkati nga ko ci ma teg ko ci turu maanaam groupe origine ki nga xam ne nag moo ko jiite mu di suñu président directeur général moom tamit mu ngi jaale ki nga xam ne moo di ak euh, ki nga xamante ni te nekkoon na fee ca Touba nekkoon représentant khalife général des mourides fii ci Ndakaaru ak ki nga xamante ni moo di maanaam sunu yaay sunu lépp fii ci 2STV mu di euh, madame Sarr moom nga xam ne ñàkk na tey euh, yaayam moom tamit ñu ngi koy jaale di ko masawu tiis boobu di ko bokk ak moom te leen di ñaanal ñoom ñëpp rek yàlla xare leen àjjana te teertu leen ci barsaxu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon monsieur le maire damaa bëggoon juste rek ñu dugg ci waxtaan waaye balaa ñu dugg ci waxtaan wax sànq wàllum insécurité di wax wàllum terrorisme élément bi sànni ci quelques kàddu rek dellusiwaat ci waxtaan bi duggaat ci yeneen fànn ñu seetaan élément Fatima bi. bu ñu sukk sukkandikoo ci information journal Libération benn groupe jihadiste liyewu ak groupe bi ñuy woowee Katiba Masina fële ca Fayal lañ daal di feeñal ca Kidira mu nekk benn localité bu situé wu ci Bakel ci diggante frontière Sénégal ak Mali ñeenti suspect yu ñu daal di présumé ñu arrêté leen ñu nar leen a transféré fii ci Dakar ñu daal procureur de la République daal di ubbi benn information ci association de malfaiteurs ak apologie ci wàllum terrorisme ko ba tey ci information bile journal mise en cause yi nag dinañ jàkkaarloo ak magistrat instructeur bi ci altine ji bile cellule nag ñi ko composé woon di Demba Sow Amadou Bori Diallo rajo Labor ak Belko Diallo ñu doon recruter ay combattant ñu mujjulee naa daaneel ci ñaari atu surveillance perquisition bu ñu daadee def ca këru Demba Sow ñu fekk fa juróomi téléphone ginnaaw ba ñu xoolee yile téléphone ñu fekk moom mise en cause bi mu nekkoon membre ci ay groupe jihadiste ci ay groupe yu doon def apologie jihad armé loolee tamit la ñu fekk ca kër Firaaji Labor. jërëjëf soxna Fatima Tall ci jàngat gi monsieur le euh, ñu bëggoon xam tuuti rek euh, dama lay interpeller en tant que député de la CEDEAO ak en tant que également maire de Kaffrine ak aussi responsable politique du pays bokk ci acteurs yi nga xamante ne tamit tey vous êtes à la au niveau donc des affaires étatiques mais bëggoon nañ xam tuuti rek gannaaw ba nga seetaan ni lan nga ñu mën a yokkal comme xibaar. Euh, jërëjëf <clears throat> bu li yàlla dogal sama réew wóoluma ma bokk ci député CEDEAO yi gëmit li nga xam ne moom moo tax père fondateur yi sosoon CEDEAO mu instrument bu am solo am njëriñ dama nekk meeru dëkk boo xam ne nii ci corridor Dakar ko ak ñi jóge ko Guinée Bissau wala Guinée Conakry di jël oto di jël ci tali bi ba ci sax Gambie nga xam ne sama région am na fukki frontière ak ñett fukki commune frontalière avec la Gambie dafa ma war a yitteel te boo duggee Mali wala Guinée Bissau wala Guinée Conakry jëm si biir Sénégal Ndakaaru Kaffrine mooy première ville bi nga xam ne ville d'éclatement la mën nga fa jógee jàdd dem boori mbakke Touba Linguère ba Saint-Louis Louga ba ndakaar mhm. mën nga fa jàddee continuer Kaolack wéy Mbour ba ndakaaru mhm. kon mën nga fa dem booru kër ayib ndax am na yoon bu lay yóbbu foofu kon mhm. lu ma war a soxal la mbiru terrorisme bii ñu ngi gis vers Kidira bettu ma ndax bi verrou bi nga xam ne nii moo nekkoon Libye sauté ba terrorisme commencé law Mali di walangaan Niger di lëmbee euh, Burkina Faso lëmbaaje Mali lañ waroon xam ne lu yegg si kaay daanaka mu ngi ci porte Sénégal waaye ndokk bi nga xamee ne problème de sécurité euh, lu ñu jël ak fayda ci Sénégal la de tout le temps hmm. doctrine parti socialiste dafa ne question de frontière hmm. ak diplomatie quelle que soit notre posture ñu nekk ci nguur gi ñu nekk dans l'opposition dañuy jàpp ne ñoo sénégalais yi politique yépp dafa war a nekk question bu def consensus consensus fort autour de l'intangibilité de nos frontières, du caractère républicain de notre État, mais également consensus ci politique extérieure ak diplomatie sénégalaise loolu moo tax maa ngi rafetlu bu baax. Hmm. fayda bi nga xam ne njiitu réewum Sénégal daje yu bëri dañ koy dégg mu am Dakar sur les questions de la sécurité sur les questions du terrorisme jël na ko ànd ko ak autorité. yi nga xam ne ñoo nekk ci bopp force de défense et de sécurité muy police gendarmerie force armée ak yeneen kuréel yi di corps habillé loolu moo tax jël guñ ko jël au sérieux Sénégal taxawal na camp militaire te mi ngi renforcer gendarmerie di renforcer police mais également di xam ne dañu war a renforcer le contrôle au niveau des frontières et au niveau des postes de passage waaye loolu pour mu am njëriñ pour mu ñoŋ du rek mbiru état ñëpp ñi nekk ci frontières yi chef de village association de jeunes de femme hommes politiques citoyens simples dañuy war a gën a vigilant mhm. saa yu ñu seetloo seen dëkk ci frontière bi mouvement boo xam ne wala xew-xew boo xam ne wala ay nit ñoo xam ne ràññewuñ leen fa miinuñ leen fa dañu war a gaaw yëgal ko autorité yi. ñu dénoncé leen mu war a nekk nag. une mobilisation communautaire. Mhm. une vigilance communautaire surtout rawatina nag. kilifa diine yi nga xam ne nii ñoo nekk ci zone frontalière